بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود Abu Huraira, may Allah Ta'ala be pleased with him and the entirety of the Sahaba of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam narrated that the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam said, Whoever does not give a forward speech and evil actions and does not abandon foolishness Allah is not in need of his living food and drink, i.e., Allah will not accept his fasting. Relate, the <clears throat> hadith was related by Imam al Bukhari and Imam Abu Dawud. May Allah have mercy on both of them. أسأل الله تبارك وتعالى an yacsimana min qawli zzuuri walcamali bihi waljahl an yaftaxa an asaluhu an yaftaxa alayna futuxati lcaribin an yusallima lana ramadan wa yusallimana li ramadan wa yatasallamahu minna mutaqabbala wa an yajcalana mimman saama wa qaama imaanan wa ixtisaaban wa an yaxfira lana ma taqaddama min zunubina wa ma taaxar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim